d' abord dañuy dañ koy masawu d' abord Moussa Diop parce que d' abord c' est un Podorois c' est un fils de Podor. Mhm. c' est un frère vraiment qui a beaucoup fait aussi bi mu nekkee Dakar Dem Dikk pour la jeunesse du département de Podor ça il faut le lui reconnaître quand même. Mhm. vraiment il a beaucoup contribué dans l' emploi bi mu nekkee avec président Macky Sall au niveau de Dakar Dem Dikk di ko ñaanal yàlla yàlla jëlee ko fa nu mu gën a gaawee. ba euh, peut-être peut-être sax man balaa ma ci commencer damay ne d'abord euh, comme ni ko premier waxee sànq. Mhm. un avocat de sa trempe vraiment candidat à la présidentielle dama gëm ni selon mes intimes convictions su demee bay proférer certaines accusations c'est parce que peut-être peut-être am na ci lu mu téye peut am na fu mu ko wéer ci li ma yaakaar ben euh, peut-être yi ñuy ni depuis sànq par rapport ak lettre bi format lettre bi ñu bind par rapport ak nord bi jusqu'à présent c'est-à-dire que déggooguñ ko en fait déggooguñ document yi mu génne jàpp naa ne ñi ngi séen nañ maanaam pour yow l'avenir pourrait lui donner raison. oui j'ose j'ose croire que defe naa. quelque là ce serait grave ah. je mmh. pense que. du waxantu quoi. du waxantu ok ci ma yaakaar. ok ok d'accord d'accord d'accord maintenant comme contrairement à li ko Gaoussou waxee. seule la justice dira si la. on doit mener une enquête sérieuse. seule la justice pourra dire si la raison ou il n'a pas raison. Mhm. moom nee na il a des des des preuves béton mais il protège ses sources. Mhm. maintenant il est prêt le procureur le juge nañ ko ñëw jël si il est prêt à les répondre maintenant moom ngi dem muy ngi ci loxo justice. Mhm. nañu déglu ba fii waa naan mu mujjee gëtal. mais loolu yëpp day day créer benn débat débat bi bi ñu intéressé mooy. parce que lii du lu bees. Mhm. par exemple c'est l'histoire de ressources naturelles. c'est vrai. du président Abdoulaye Wade comme ni ko doyen waxee léegi. Euh, gis nañ fi l'histoire de Kumba Ressources gis nañ l'histoire de ArcelorMittal. Mhm. mais du temps du président président Abdoulaye jusqu'à présent est-ce que réellement les populations c'est-à-dire ressources naturelles ont profité aux Sénégalais. Mhm. en réalité li intéresse mooy est-ce que ces ressources-là ont lu fay génn ci or lu fay génn ci ay ressources naturelles malheureusement c' est villages les plus pauvres de ces c' les villages les plus pauvres du Sénégal malheureusement li fay génn ci ay or li fay génn ci les populations n'en profitent pas et le débat doit être orienté dans ce sens mm-hmm. pourquoi les ressources yi ñuy dégg di ko dégg wax na ko léegi on a les phosphates am nañu zircon am nañu carrière am nañu fer am nañu lépp pour pourquoi wax na ko dans la vallée du Sénégal le ministre l'a dit hier il l'a reconnu on a deux cent pas trente cinq mille hectares mhm. alors que rien que cette vallée là pouvait nourrir le Sénégal nourrir toute l'Afrique de l'Ouest mais du ma bàyyi mhm. si on aménageait l'autosuffisance alimentaire ci ceeb ci blé yooyu yëpp mënoon nañ ci am autosuffisant mais on a les ressources on a les potentiels agricoles mais loolu. c'est quoi c'est nos dirigeants. c'est un problème de volonté politique. ok parce a un

au niveau du monde rural à travers le PUMA le PUDC et tout ça mais dans le cadre de la gestion des ressources ça pose problème mhm. ça pose problème loolu c'est la réalité la preuve wax na ko léegi ñan ñoo diriger ces compagnies là même les au niveau des MIFERSO ou tout ça c'est des hommes politiques kon kon lañ koy jox mhm. ñoo généraux yoo xam ne ils sont dans des partis politiques Aziz Diop foofu nekk Aziz Diop c'est un que mhm. la réalité c'est des partages réalité il les tous les acteurs politiques. Mhm. mu nekk opposition mu nekk pouvoir mu société civile bâtir des consensus forts sur la gestion de ces ressources là. c'est des consensus forts bëggee de transparent quelque chose boo xam ne. mais le président Sall il avait appelé à des concertations ah si si exploitation des ressources yi. non non ci loo xam ne il avait convié tout le monde aussi. parce que def li ngay def ba pare woo ñi ensemble ñu teg sur la table voilà ce que nous avons à quelle compagnie on va donner ça voilà les partages kan la ñu partager ñu bàyyi fi des consensus moom même su demee mhm. ça va traverser moom day day day traverser ça kii ñëw continuer mhm. mais tey li fi xew tey dans la gestion des ressources un président bu comme ni ko Fam mhm. si c'est Ousmane Sonko qui était là qui a déjà dénoncé l'utilisation euh, déjà sur le pétrole et tout ça ak le fer et automatiquement il va <coughs> bon euh, su ma juumee voilà il va résilier ses contrats et loolu c'est des retards yu. on de l'entreprise ah. ah. bu euh, jeex non bu jeexee non su ma su ma su ma jugoon c'est pour dire que moom su mm. ñëwee. Mm-hmm. problème day am donc peut-être que mu résilier yoo xam ne alors mënoon nañu profiter mm-hmm. vraiment Mamadou li intéressé ci débat bi sur le débat de Moussa Diop maintenant aussi que le droit soit dit dans cette affaire là mm-hmm. que de ce qu'il a dit on doit vraiment revoir. la gestion de ces ressources et dans ce procès-là ma ah. terminer foofu. que le droit soit dit rien que le droit. c'est important aussi c'est un candidat aux élections présidentielles. Mhm. parce que nous ce qui nous fait peur dégg nañu démb le ministre Aly Ngouille Ndiaye wax. wax na comme ni nga ko tu de diamant xaw ont été traînés mhm. par le. ndox mi ko il a dit que des permis ont été donnés à un Sénégalais. Mm que Sénégalais bi sax tuddul turam. Mhm. on aurait aimé que mu ne a été donné à telle personne ñoo xam ne Sénégalais bi la. mi ngi xool jamaa jox nañ ko permis. d'autant plus que dans le dossier bi Moussa Diop di wax des mhm. noms sénégalais ont été cité là-bas. Mhm. le tour Sénégal il faut moom nee des Sénégalais ont été permis d'aller faire des explorations comme ni mu ko waxee. si Moussa Diop retire sa plainte on laisse le dossier jusqu'à jusqu'à ce qu'on termine les élections loolu la wax ah, ça ñu intéressé Sénégal li ñu intéressé naka la ñu koy gérer moom il était dans le régime il était là du temps de Coumba sous il était là avec ArcelorMittal il mm. su ma juumul il était ministre des des mines ou tout ça xam na comment ça se passe ça veut dire que vraiment daal il faut qu'on ramène ce débat autour de l'utilisation sénégalais yi mën